et des délégués de ce quartier et du délégué de ce quartier monsieur Guèye Yakar nañ dal système bi buñ ko réussir inondation mën na euh, à aux Parcelles ah, donc fi day am ndox day mais bu ndox automatiquement converger point donc tranché bi nga pour les donc machine baa ngi nii di liggéey incha allah on suit les travaux ci kanam tuuti leen leen euh, envoyé waat yeneen vidéo